mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, wax ni yéen a ngi ci seen biir émission Vox Arena mi ñu nekk ak su mam Less ñu fas yéene waxtaanee làmb hmm, fas yéene waxtaanee euh, saison bu tëj bi mbër yi nga xamante ne euh, gis nañ leen ñu war a bëre déwén hmm, combat yu mag yi taxawagul hmm, ñu am combat yoo xamante ne jàpp nañ ni dafa jaadu dafa war a taxaw ñu fas yéene cee waxtaan ak coach Mame Less ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk yi ñu dugg ci waxtaan bi. Euh, di nuy suma rak Cheikh comme d'habitude suma frère laa Diop di nuyu Pape depuis la Boguère Jean-Claude depuis le Moreau euh, di nuyu suma frère Malick Asmar mi yor fan si club Mame Less depuis itali de Grand Dakar Max aussi noonu di nuyu suma rak Feeraay ñu naan ko Ablaye Diop <clears throat> moom moo yor DG moom moo yor waay moo yor fan si club ba fa ne donc di nuyu aussi axlu làmb di ñaan yàlla aussi li ñuy wax yàlla nañ ci bañ a nekk loo xam ne dañ ñu ciy xeeb. premier roi des arènes boo xamante ne dafa ñàkk première sorteem hmm? ñu gis bombardier bëreewul ren mu nekk ay combat yoo xamante ne euh, yaakaar naa euh, ku mel ni Balla Gaye waroon na bëri ren comme Modou Lo mais on aussi seen affiche yi yomb na tëgg alors gisee comme euh, saison ren bi. Balla bëri na ren. Balla bëri na ak Modou Lo waaw peut-être nga mooy la wax rek somme ciy def léeg-léeg mooy waral loolu. mais combat yi ci ak mbër yi ni ñu mbër yi jël jël jamono yi ñu nekk nii. Euh, man d'accorduma ci benn duma ma bëreeg diw loolu man d'accorduma ci nit ku ne nag am nga choix mais ëmma ci ëmma ngay def ci moom laa njëkkee maanaam ëmma mënoon naa am plus d'argent que mu ne woon duma ma bëreeg Balla parce que moom mënoon naa kale carrière am ci Balla Gaye ak Bombardier am ci xaalis bu weex tàll parce boo déggee mbër rek wala nga tudd mbër rek tudd xaalis parce que tey buñ dee wax dëgg rek te làmb rek sax ñuy wax tafaatin donc ko fi dese te noon naa am combat njar ndéem combat choc boo xam ne sponsor dañ ci dugal seen xaalis loolu njar ndéem la njar ndéem la maa la ko wax te xaalis dana bu weex tàll la ciy génn mais tey benn adversaire potentiel moo ko dese Sénégal muy tafaatin moom rek la fi bëreelul xanaa mu wàcc may booy essence te xaalis boobu du bari maa la ko wax parce que bu Balla gay li mu lim lim ne du bëreeg moom kooku maanaam du ma ne du erreur am na choix am mbër la am na lu tax mu def ko mais foofu moo doon xaalis bi somme d'argent bu bu bu nga xam ne moom la mbër yi bëgg moom day kale ñaari combat am ne man ak Balla Gaye maak Bombardier Ousmane Sow bu ñëw di wax loolu laa lay wax nga gagné fee sa benn 130 millions dem yaag Bombardier muy njëriñ parce que yow yaa daanal Bombardier nangu roi bi ci moom donc combat boobu Bombardier du ko bañ. day bëgg moom it jël si revanche am ci ëmb ci seen donc nag combat njarndéem la mais du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw mbër yi dañ koy dañuy yàq làmb ji. kon yow da jàpp ni Eumeu seen pour xaalisam bari. fii mu toll ci làmb ci bàll Gaye lay jëm. maa la ko wax bu bu ko jëlee xaalis bu wax tàll sponsor yi dugg si. d'accord Balla Gaye Eumeu Sène. Mhm. Eumeu Sène bombardier. mu taxaw ne ñaari combat yi laay bëree. sponsor dañ ko fekk si. maa la ko wax. d'accord bu dee làmb rek moo tax may wax. loolu mooy làmb joo xam ne déwén la jëm. d'accord d'accord Balla Gaye mi nga xamante ne Eumeu Sène nee na du ko jël. waaw Balla Gaye fu mu jëm moom. moom Modou Lo fi mu jógee aussi. Balla li ma la mënti leer ba leer Balla Bombardier lay jëli. nga ni. moo kooku moom bul sonn. Balla Bombardier. Balla daa toll ci diggu doomam. Bombardier ñëw daan ko. yaa ngi dëgg. Mm. loolu nag Balla mu ngi ci yaram ba léegi Balla ku ko daan dina di nga ko di nga ko di nga ko di nga ko joxaat kii bi. maa la ko wax moom Balla. Balla Bombardier combat bu jëm déwén ku ko tëgg am xaalis waaw. Balla Bombardier. ku ko tëgg déwén am xaalis. parce que Bombardier da ko daanoon. te Balla ku ko daan dana ñëw. Mhm. fi mu toll nii lu ko Bombardier sóoru sóor itam dana ko jëli. waaw kooku combat bu jëm déwén la njërndéem la. te njërndéem la maa la ko wax. dafa neex lool sax. ki nga xamante ne moom mooy euh, Modou Lo le roi des arènes. laay laay la laa fu mu jëm. waaw kooku mooy bomb. maa la ko wax. Modou Lo bomb. Eh, maa la ko wax mooy càppaacoli ju mag ji xam nga càppaacoli am na bu ndaw moom mooy dox dëpp ki mooy seef fu mu jëm mooy buur waaw moom mooy buur de jamono ji eh, moom kay moom fi mu toll nii xam nga làmb balaa moo gën a neex am suspense man ci sama daraja laa la wax man ak li ma xamee làmb peut-être ànd ak mbër yu bari fii yoo xam ne du ma toog sax naan diw ak diw mais dama ne la calcul bi may calculer sama sama carrière man nga xam ne yow yootu nga say mag ba yàlla defal la nga dégg daal yi génération bi nga tollool danaa ne kaay leen ñu bëri. moom Modou Lo maa la ko wax génération bi Modou tollool. combat déwén bi muy am. ci génération bi tollook moom lay jël du ma tuttur <laughs> maay làmb de. Euh, génération bi mu tollool. waaw kenn laa fi gis ni moo fi soxeeku. Mm-hmm. daanuwul wala boo géj daanu lool nekk ci ay ay guddi yu doy euh, yu am solo daan tafaatin muy Ama Baldé euh, kooku suwaaw Modou lay doon mais d'accord nga combat bi déggal ma man bu ma doon Modou tey mhm. man nga xam ne sport de combat laay def nga xam ne am naa ci maturité boo xam ne kenn dut ko dindi mhm. dama koy jël tëj gémmiñam eh. day jël day jël Ama Baldé maa la ko wax ñoo débuté ndoo Modou da ëpp tur dong waaye ñoo débuté ndoo bëree ndoo Modou daan ko par mbapat léegi nag leeral bi si Modou lay dépendre pour mu jëli Ama du man maay jël Ama. mais Modou Lo bu jëlul Ama fu mu jëm. des na ay naataangoom. comme kan Tapha Tine a ngi eh, eh, la. ci la Modou ay ci ponk lu mel noonu. njarneem la de. déggoo li ma wax de. làmb laa xam. làmb laa lay wax Modou bu jeexaloon tafaatin tey wala mu bëreek moom comme ni mu bëreeg boo bëreeg Balla Gaye deux fois bëreeg Eumeu Sène deux fois bu bëree woon ak tafaatin day pare ci carrière am xool xale ndaw yi di leen may saas ne la ñëw la ñu ànd. kon moom ak tafaatin neex na. déggoo ma la baa la fi toll nii moodu mooy toog di xaar lii ñëw fi mu toll nii ku muy bëreel xaalisam day weex tàll yow nga doog a ñëw ñu doog a waxaale yow suuf. d'accord mooy chef. mooy mooy buur mooy buur mooy bumbi. <laughs> Ama Mm-hmm. Ama Baldé def gis nañu euh, gars yi waxul ay yoon yoon moom ak muudu Moodu na na na def ndànk egseegul wala euh, euh, ki nga xam te ne mooy Biram ñi nga ne bëréewuñu ak moom moom fan la jëm bu bëréewul ak Modou Lo Ama Baldé Gris Bordeaux mooy combat nga <laughs> xam nga bëgguma la sax wax loo xam ne day dafa yéenul maanaam eh, man damaa eh. bëgg damaa bëgg ñiy seetaan doomu aadama yi seetaan xam ne kii di wax nii li muy wax ci làmb xam na ko te du ma waxantu dama bëgg li may wax nit ñi ak askan wiy déglu ak ñi nga xam ne duñ seetaan làmb li bari buñ ko dégloo xam làmb. waaw Ama Baldé Gris Bordeaux muy diggante Fass ak loolu mooy njëriñam Papa Sow ak Siteu mii ñuy wax nii mhm. bu ma sañoon Papa Sow ak Guy gi lay nekk. ah bon. ko dàq. kooku grand combat nga koy def yóbbu ko ci arène nationale bi wut ay xale yu ndaw toftal ci suuf boo bëggee xale yu ndaw yi mën naa laa kaleel combat yu dul jeex. ku ma la tëggal nga wax keneen. mais mais mais mais mais Papa Sow Siteu tamit neex na. non loolu combat la. mais dama ne maanaam bi gën a nekk en vogue. xam nga maanaam promoteur yooyu bëgg. promoteur yi ñooy am choix seeni mbër seeni seeni seeni lutteur mais man dama ne la combat bi nga xam ne mooy lu logique te neex. mooy diggante Papa Sow ak Siteu. ak Guy gi waaw. Tapha Tine bu weesoo euh, Modou Lo mi nga wax. Tapha Tine moom fu mu jëm. ëmm mi toog di xaar. waaw day dem jëli Tapha Tine Eumeu seen benn Tapha Tine la fi dese Modou Lo ratissé la ñëpp ba nga xam ne moom it Tapha Tine ko dese mais dama ne la bu combat combat du Modou koy taxawal. combat promoteur bi mooy ñëw sponsor na ko defal ma nangam mu defal ko ko. day ñëw ne Eumeu ak Tapha Tine lañ soxla teg nañ ci nàngam ci xaalis. sponsor génne na 250 millions wala 300 millions. d'accord donc léegi nag choix bi ndew ko nekk ci Eumeu. waaw Modou tamit noonu lay demee mais dama ne la. Tafaatine am na possibilité Tafaatine am na possibilité bëreeg Eumeu Sène ndax Eumeu Sène Tafaatine dong la dese fi Sénégal ci ponkal. d'accord de ko que Modou Lo pareil. mais dama ne la man bu doon maay Modou Ama de laay jël bëreeg moom. Hmm. ndax xale bu ñu noo tolloo ay xale lañ. d'accord ma ko ko de. ñoo tolloo. ñoo duggandoo génération boo xam ne buy kii dee dugg da ko benn combat la ko njëkk a bëre wala ñaar. Lac de Guiers. Mhm. gannaaw bi mu génnee ci Boy ñaar fu mu jëm. Lac de Guiers Modou Lo lay jéem a yóotu. ndax nee naa la roi des arènes bul buy tourné la c'est fait pour personne te kenn moomu ko képp ku ko mérité bañ ko yàkkamti barke yàlla yàlla mii dina ko teg sa kaw bopp bi mais bul buy tourné la mais jarul yàkkamti am na ñu mu war a bëreel am na naataangoo ñu mu war a bëreel. moom moom moom Lac de Guiers ku muy jël. Lac de Guiers ko mës a gis fenn ci arène bi. moom Gris bu faas foo ko mës a gis. fenn Lac de Guiers mi bëri Yékini war naa mën a bëri Gris Bordeaux. dëgg la de. dëgg la de. waaye ma la sa waay làmb dafay neex. te loolu njàndeem la ngay seetaan sa xol bi sedd. nga boole xale yu ndaw yi génération bu ndaw def ci spécial bu neex boole xale yu ndaw yi ci suuf. parce que xale yu ndaw yi mën nañoo jaay combat bu mag bi. Hmm. combat bu mag bi daanaka turu combat la. Hmm. mais xale yu ndaw yi li ñuy bëri ci suuf mooy dàq bi léeg-léeg combat bu mag bi. dëgg la Lac de Guiers Gris Bordeaux. waaw Lac de Guiers Gris kooku moom laa wax ne la njëriñ la xam nga maanaam bu diggante Ama ak Gris Bordeaux yàqoo moo di taxaw di xaar yaa ngi dégg moo dana bëri déwén mais dama ne la. jàpp nga ne dana bëri dana bëri déwén. Modou Lo nopp lu mënta wees 6 mois boo ci teg boo loo ci teg nagam. d'accord loo ci teg nagam. maa la ko wax. d'accord parce que munoo di entraîner pendant 6 mois. te préparé pratiqué woo loolu nga entraîner jëflante woo ko sa morom. d'accord d'accord parce que combat yi aussi diggante janvier. ba ba ba ba août wala wala ki boo ci bëriwul. yaa ngi dégg année bi day jeex. d'accord Boy Niang jóge ci défaite. Hmm? fu mu jëm. booy Niang xam nga fi mu toll dafa bëgg dugg ci VIP yi. doon accélérer boppam. dem jël Lac de mm-hmm. nee naa ko Lac de ku naqaree bëreel la peut-être samay wax moo neexut a dégg. ko neexee. waaw bëreeg Gris Bordeaux ku ko bañ. kenn bu ko neexee bëreeg Tapha fu Sa Thiès taxawee di laaj tafaatin waaw dëgg-dëgg boo bàyyee boo ñaar ci gannaaw nekkum naa féq mm. mais Sa li muy làq du liggéey ku ko boole Garga Mbossé ku koy bañ. Sa Thiès waaye njar dem la waaye tamit sa bu ma sonal. combat la xam nga xam nga maanaam juróomi naataangoo mën naa la koo jox. xam nga xam nga xam nga maanaam. làmb ji moo mel noo xam ne mbër yi day dem benn moo xam dañ ko xaw a yàq. parce que kooy wax mu naan du ma bëreeg diw wala damaa weesu diw. loolu moo fi jeex. Sa Thiès Garga Mbossé. xaalis mooy tegu ci kaw taabal ji. mais loolu événement la. waay yow waay arène nationale la jëm. ak Sa Thiès kan. bari na ay adversaire de. ku ma la waxal danaa bàyyi keneen ki bi des. dama ne mbër mu ne am na juróomi adversaire yoo xam ne adversaire commun la. mais déggoon naa fi Yékini Junior tamit. waaye bu ma la limalee duñ jeex. Sa Thiès Papa Sow mi ngi dégg combat la. Sa Thiès Yékini Junior combat la. Sa Thiès Malick revanche. Hmm? ku Malick ñaa daan gàkk-gàkk boobu sa yoon da nga ko jëli Sa Thiès Garga Mbossé combat la Sa Thiès Garga neex na Garga ma nekk États-Unis di préparé bu ñëwee ak doole ji mu yoroon bu ko yokkee Sa Thiès a ngi liggéey kee dem na liggéey. seen seen runkum la nu metti. waaye runkum boobu maa de taali. maa la ko wax. ki nga xamante ne moom mooy Siteu. gannaaw bi ñuy déggee moom ak Papa ñu ngi koy dox. Siteu fan nga fan nga koy yóbbu. Euh, xam nga Siteu léeg-léeg damay wax sax nit ñi yaakaar dama ko bañ. mais c'est un phénomène mais man porte de sorte porte porte porte porte bi ñu ko bëgg a dugal ah porte boobu day xaw a yéeme trop ci moom ndax boo xoolee examen yi mu doon def yi mu ciy passé du bari te chaque fois dañ koy dugal ci loo xam ne njar ndéem boo xam ne leer na ne tey ku ko doon tegal peut-être bu ci dee génn par erreur la ciy génn wala mu génne ci difficilement parce que ña muy bëreel dañoo man di bëri mën a bëri te duñ maye ñi ngi koy wax moo Papa Sow ñi ngi koy démarché kenn du mën lu may di ko ñaanal yàlla na combat bi sotti loolu rek lañ ko mën a ñaanal parce comme dañoo nekk ci combat di ko waxaale buñ ko joxee yeneen adversaire promoteur yi daw di xëccoo lool di xajamal lii kooku baaxul waaye moo Papa mm-hmm. yàlla na doon combat bi taxaw la mu liggéey États-Unis yàlla na indi forme bu baax indi yaram bu baax di leen ñaanal képp kuy bëre déwén ci mbër yi képp ku ci mën sa moroom yàlla na ko daan. ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg. laay laay gone googu nga xamante ne macha allah mu ngi actuellement di préparé wu fan nga ko yóbbu. Euh, rëg dafa bëri naataangoo yoo xam ne dañ koo xaw a jégu ci lébu gi. Ah mooy loolu nag mooy xaw a xajamal làmb ji parce moom li ma gëm mooy ma moom dafa waroon gëm rek boppam mais euh, adversaire yi fi nekk muy ñoo xam ne tase na ñoom mbapat muy même génération montant boobu tey boo jëloon rëg-rëg yóbbu ko ci doomu dàngu boo woon doomu dàngu te mu ne dama ko xeeb walla dama ko dépassé yaa ngi dégg nga jël rëg-rëg mais doomu dàngu ko la defal ndànk pare gu ma de bul gaawtu bul gaawtu may ma ma yeggale parce que nit ñaa ngi seetaan Reug Reug nga jël ko boole ko François bëre dóor ci arène nationale jëlub spécial bu mel ne général Malika ak doomu dàngu. mais mais Reug Reug est-ce que est-ce que dépassé wul François. Eh, la. waaw d'accord naa la. mais est-ce que rawu ko ci làmb. journée ba ngay xool ak ña soxla ak amateur yi ko soxla. est-ce euh, boo ko xeebee fu mu jëm. ku daan Gris 2. laaj naa la fu mu laaj ñaa la fan la jëm feneen. daanante leen guy guy guy gi. déet defal ndànk topp guy gi taxul nga bëreeg moom. topp guy gi toppal booy ñaar rëg-rëg bi mu bëree pare ci suba si wax nañ ko moo ko Ama mais loolu xam na nu mënta nekk. maanaam da ngay fëgg fu sori pour jot li gën a jege. boo rombee li gën a jege ba pare dugg ci diggante bi doo ko yegg ci dañ kum kii bi waaw. Ah? rëg-rëg booy ñaar mën naa sotti rëg-rëg Ama fay nañ ci xaalis di ko waxaale. mais mënta dem mais c'est dafa am fu mu toll. foofu mu toll nag nit ku ne dangay ñaan yàlla yokk donc yow da gis ni moom ak euh, Franc dañoo war a bëre. doomu dàngu. moom ak doomu dàngu. bu tëngéej. waaw ak général Malika combat ngi ñëw ci doomu dàngu mais euh, Franc. Reug Reug laa waaw dama la maanaam génération lañu. Franc ak ak ak Reug Reug combat la. Euh, Reug ak général Malika ci arène nationale foo ko tëggee combat la. Mm-hmm. Reug doomu dàngu combat la mm-hmm. VIP yi dafa am par secteur. xam naa xam naa d'accord. waaw secteur bu ne ak loo. loo bu ne nag da ngeen nekk cinq naataangoo yoo xam ne war ngeen bëri seen biir cinq naataangoo yi kenn mënu leen ci dindi. donc faaw ñu bëri au moins kenn ku ne benn combat xaw a monté. Mhm. mais sinon fa ngeen di des da ngeen di yàgg des foofu di bëri seen biir di fa risé wu te doo leen avancé. Gris 2 Maodo fu mu jëm. Maodo Elton. nga ñaari mbaqus la. Maodo Elton. maa la ko wax làmb laa la ñaari mbaqus la. ma ne la boobu doo ko def sax grand combat ca spécial bi nga koy dugal. grand combat dangay jël ñaari xale yi génération montante war a jéggi dugg siraat te beneen VIP ya te digg doom ya. léegi nag waaw waaw jéggi siraat léegi nag daal di jël Elton ak Maodo muy ñaari mbaqus nga def ko ci spécial bi. Diène Kairé ñu gis ni combat bi mujj dafa nul ak ki nga xam ne moom mooy Quench moom Diène fu mu jëm. ci loowu ñoom Franc la bokk weesul foofu hmm. ku fa dugal Quench weesu woo foofu boo jëlee rëg jël doomu dàngu jël général Malika jël Kouens jël Diène Kayré jël Franc yaa ngi dégg loo fay dugal leneen bëri leen seen biir. lu fa lépp lu fa taxaw combat la njëriñam la. njëriñam maa la ko wax boo leen jigéen ku ci génn foofu nag nekk ca cappaandaw ga mën a dugg nag. ci biir la bokk bu ma doon limal ñoom Cobra Pikine ci biir lañ bokk. Thérèse Ndiir ci biir lañ bokk bu ma la di limal duñ jeex damaa wax rek diggu doom ne la. bu may lim man cinq adversaires potentiels laay lim ci mbëri bu ma doon lim mbëri nekk Sénégal fi la ñuy fanaan mais dama ne la nañ bëri seen biir ku ci génn nekk ca dugg ca deuxième sortie ba boo jógee deuxième sortie dem ca da koo gën yaa ngi ma doon wax ni euh, euh, euh, combat yi nga xam ne ñoo leen gën a suufee am nga loo ci xalaatoon foofu la ñuy tëjee lan lan la combat yi ndaw yi bari nañ parce que am na génération montante bu ndaw boo xam ne ñu ngi toj réew mi mm-hmm. ku mel ne Petit mm-hmm. mel ne Boy Lo mi nekk résistant Fatick ku mel ne liis Ndiago parce que man li ma bëgg mooy xeexu njaago du jeex boo ne ko bu tàkkuloo rek mu ne la bulon donc boo jëloon tey liis Ndiago moomu boole kook Boka ah nga xam ne kii am na trois combats ak benn defet kii am quatre combats am quatre victoire waaye loolu njëriñam la tamit. Ah, émission bi jeex na. lu ma lay wax leneen combats yi ndaw yi danga nga leen dugal ci biir maanaam da ngay jël Ndiago bi boole koog Ndiago bi nekk kër jàmm gën boole koog Ndiago bi nekk parcelle. neex na de xeexu njaago du jeex. Cheikh Omar mi nga xam ne suma suma xarit la waaw soxna su mu takk ci France waaw di wax xale jigéen yéen ñu nekk parcelle rek ak ak Patte waa Grand di ko xool ci Equivox TV xam leen ne leen may nañ ko soxna samedi soxnaam saa ngi bitim réew fa la juddoo fa la yoroo fa la màggee léegi nag ngeen ngeen ngeen ñaanal ko yàlla def ci sëy bi barke maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm waa Equivox TV. maa ngi leen di gërëm mbokku téléspectateur di leen sant di sant euh, coach Mame Less <laughs> di leen euh, wax ni euh, ñu ngi leen di euh, bégee bu baax a baax gis nañu làmb ji bi mu tëjee ba tey ñu ngi doog a dellu siwaat hmm, rawatina ak coach Mame Less mu nekk koo xamante ne xam-xamam macha allah ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér yaakaar naa li mu wax tey kenn mënu cee teg dara xanaa rek di remercier ki nga xamante ne moo ma solal El Hadj moo maa ngi koy remercier ah di leen di remercier yéen téléspectateurs yi Equivox TV yi di leen jox dig daje ci beneen numéro Vox Arena peace. <laughs>